sëriñ Basiru moomu noon dinaa xamal ñi fi newoon sëriñ bu baax bi fi ba ñépp xam na kenn la yow paate jëng def ci bayit laa la digal wutal kayit te soo noppee nag ma ko yoon fi rasen lu yomb la Cheikh Ibra Faati lay xamal ñi ko xamul ñoom laay xamal na sunu sëriñ ci ay jikkoom yoo xam war na jëpp doom di nekk di ko rëy ci moom ndax mel ni moom lu jafe la moo bari diine bari ngor bari xam-xam te mën ta war ñi meeb xam la ko war wuute wala kun yónni la kersaaki taggil moo kaam te mat wala renel naam du xeeb du naw moo bari jom ñi me tañu ku sell la dara du yomb tam dara du tax mu des ba laay duwaañee jëmum maam Cerno jënn jëmm la aajo ju mat laa ko giseel diisoog ñam war a lum la digal def na ko teelum terey lum bay ñeent fukki kilomètre yu wër la Cerno toolo maa ko wër dinaa ko wax waxin wér ngeen xam ni kooki kenn la xoolal nga xool xool mbay samaan këleel xattale moo fi daan bàjjo bi moo ñàkkoon ki ñaan amul moroom kenn ba mu kajoor daa romb jabb romb las jaar mi ñam sëriñ ñoboo mbàkke de soppu nañ la sëriñ ñoboo mbàkke de bëgg nañ la sëriñ ñoboo mbàkke de soppu nañ la salu baax de ñun de sant nañ la sa baay ju baax ja moom de sant la ngir salu baax de ñun de sant nañ la sa yaay ngir salu baax de ñun de nañ la yow ku la gis de xam ni nit ku yiw yow ku la gis de xam ni nit ku taaru nga xamal ñi ko xamul mi ngi daaru kenn maa fi tuur ci ay jikkoom yoo xam ne war na jëpp doom di nekk di ko ci moom ndax mel ni moom lu jafe la moo bari diine bari ngor bari xam-xam ta war ñi meeb dogal xam la ko war wuute wu la kersaaki taggil moo kaam te mat wëllëra nel naam du xeeb du naw moo bari jom ñeme te ku sell la dara du yóbboo fitam dara du tax mu ras bëtam taay du wàññeeku mu maam cer na jënn jëmm la aajo ju mat laa ko giseel diisoog ñam war a giseel lum la def na ko teelum terey lum bay ñeent fukki kilomètre yu wér la Cerno Toola maa ko wër dinaa ko wax waxinu wér ngeen xam ni kooki kenn la xoolal nga xool xool mbay samaan këleen xëttale moo fi daan bàjjo bi moo ñàkkoon ki ñaan amul moroom kenn ba mu xee mbàkke kajoor daa romb jabb romb las jaari lu mi ñam ma waru fa te booba teewuru gott la ñu naan mbàkki siyaar jaaraama Seexu Balla jaaraama moo garlu njëkk te sasin gas lu la sasi sanc ba moo di al sasin taariix ngi bab dëgg moo taj cunkuuli taj kaloom mu mi génn fay ñaloor gaynde yoon ci biir di boom mu dàq leen tey jat la dale bii bi ba jaxoo jàpp gu di baxaw mu naa murit bu leen dem leen bu daa la la daleen dam ku bandayoor ma ko cerno ko gor moo gor baraadi ab ku lër gor dër bu gor bu mokk la kartus gone ab gani doom la jox daan nuy defiim yoo xam na fu mu di boom te booba taawit na la la gor lu cabbu gel gor dum ku jàllu dullu ngel na gaañe wey leen ba wut lu ñuy gor ba ji at ya ca des la toj ko so ak lu mbi dawal teewul mu daal fi toju gaañuñ te ba koobel koobel la def daaru salaam waa jukka dëkkam salaam amidul jóob na nga nekkaam xam na sa sedd na la fekkoon na ceer na gorlu pet ak dam du lool ba lépp set ba gaañee ko del mu set tey lool yi lépp jàkki la ku ma ak foo jege mu darle inu ngoo jege daal lay wutal tool bu jege naa la dëkkal fii bay asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen xamal ne nag sëriñ Abo mii de sama mbokkum daara la sama xarit la sama lépp la waaye nag kàddug tey gii moom du sama kàddu kàddug sëriñ Basiiru moom sëñ du Faty Khary mii toog moom laay waxe ci turam di feddali bu baax suñ ko lëre ak moom di ko gën a ñaanal bu baax am yaakaar lool ci moom bala ma koy fàtte maa ngi rafetlu lool fekk gu ma fekk njabeetu sëñ Abdou Karim Touré sama sëriñ ba xam nañ leen bokk ak moom lool léegi la ko sëriñ Basiru di waxtaane kon sëriñ Basiru nee na sëñ Abo sëñ fàll bu mosaan di ñëw laylatul xadar danaan ko lii ëpp na bis nekk tey waratoo jóg ñoo war a ñëw mu ne ko bu ngant amee waaye segam ngant amut foo nekk danaa la fa fekk sëñbas nee na sa woyu jur de ku ko mag ci yoon wi am na waaye ku ko gën amu ci kon nag ni nga koy seere lool sëñ Basiiru sëñ Abo mi ak sëriñ Basiiru bi ñu nekkee koso gii di jàng may seen mag ñu fekk ma fa dara mos sa jóge kër sëñ Modou Faty Khary ñëw foofa ngir ñun lu mo luñ mosaan soxla sëñ Fallou mooy digal jigéen ñi ñu defar ko yët ñu ko fa suñ ñëwee sëñ Fallou danaan na eh, seen mag yooyu ñu fi fekk ñoom laa ko defal sëñ Abo mi mën na koo seere loolu nag ba mu koy def jëf ju yàgg la waaye ñun duñ ko fàtte mukk sëñ Fallou sa jeey mag ko ci yoonu sëñ Touba yomb na waaye kenn gënu ko te mat na sëriñ ku ne yal yàlla yokk leeram sëñ Abo ah li la mbokk yépp di jawee ci baax damay mos a sañ sëñ Modou Kara Sylla sa mbokk muy wax ne koo wax ne xam ma nu ma koy def dalaa def nu la jaaxal te ni nga def ñëpp rek ñëpp a ko waxandoo la yàggal la yàlla yàggal la fi lool yàlla yàlla dëgëral yen bi yal yàlla tawul leen ko sañ Bas nee na mu ngi ànd ak yéen lépp bu sañoon fii lay yendu fii lay fanaan waaye comme jataay bi cernoo yaatu mi ngi njëkkee ci yow daal di laaj ndigal pour jàll rek ca jumaa ja ziyaar yi jërëjëf Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatulah. Serigne Abo moom sëñ Fallou Assa Dieye ki fi ñëw nag day sëñ Fallou ci moom di sëñ Modou Balla ci moom di sëñ Abdou Lahad ci moom di kilifa goo xam ni du yónni woon njabootam wala doomam wala sëtam rek mu doy sëkk waaye nag moom aw doxinam ak yitteem tax na mbooleem fu bokk yi eh, am yu mel nii képp kum ko seqal daanaka day jar mu ju mu jug demal boppam. ci këm si seqal kon nag sëñ Moustapha sa ñëw bii mel na ni la sëñ blaat Lahad ñëwoon ci borom daarul Moxti borom daaru ni ko 40 kilomètres carrés yi yëpp maa ko gor lépp a ngi fi waaye du ma la ci jox dara li ma lay jox mooy li sa bàyyi gën a ñëpp ma ne ko ñëpp mooy na nga xam ni sëñ Abdou Lahad ëpp ñëpp jom moo ëpp ñëpp ngor dégg naa sëñ blaat Lahad nee na wax jooju de saa bu ma demee bay dugg bay dugg ci dara rek la ma borom daaru waxoon ci sëñ <laughs> dina dinaa ci bàyyi xel mooy sa bàyyi ëpp ñëpp ngor sa bàyyi ëpp ñëpp jom diggante sëñ Tuubaa borom daaru nag moom kenn mënu cee wax ndax euh, euh, euh, mbubb mi ko sëñ Tuubaa solol jutul kenn ku dul moom ibrahima lazi lam yu faarix nii lam yu xaalit nii laa fi si sixarihi wala fi kibarihi kenn mosu ko dégg ci àddina mooy sama përëgum ndajoor te mooy séddale maa ngi dégg démb sëñ mahmoudan sa rakk ju baax ji di nettali ni sëñ Abdou Lahad mos naa wax sëñ am sëtu ni ko Euh, sëñ am setu jaxate de nettali na ma ni sëñ bi bu nekkee borom daaru ba bis bii ñu gisee woon ni su saabaan dañu ko no de duma demoon doo demoon ma ñëw ma ma toog ndax dinaa ko mën nii yéem nga ma lool ni ko waaye nag sa yëfa ngoog ku am na la sant ku ñàkk na la xalam <laughs> kon nag day wane lii rek Mbàkke kon jërëjëf euh, loo fi yàgg Mbàkke yàlla nga fi yàgg lool te noppal nga Sëriñ Sidi lool ci yitte yëpp ku gis ku dugg kër Sëriñ Abdou Lahad Guèye gis la la fa sëriñ sii di sant nga def ko ba noppi xeeb ko lool loolu mooy wane ni da ngay wanaat murid yi neen murid du wàcc day jëf rek waaw dax ndax ku ne xam na ni sëriñ sii di defoo ko mag Sëriñ Abdou nga ko def wajur yàlla yàlla guddal sofan te wéral la murid yi nga la xam ak yi la xamul ñëpp say soppe lañ ngir sëñ Tuubaa ndax Mbàkke murid yi sëñ Tuubaa rek lañ bëgg ñu kenn ku dul sëñ Tuubaa suñ la gisee nag nga ne ci sëñ bi di ci xëy di ci gont mën nañoo nos seen bopp jox la ko te yow génnoo benn yoon sëñ bi yittey sëriñ bi moo xam ci taalibe yi moo xam ci armeer ya moo xam ci yitte yi sëñ si di war a dox demul fenn ndax yow yàlla yàlla guddal soo fan la sëñ Tuubaa waxoon borom daaru daal mooy sama përëgum dajoor yaay përëgum dajooram te lenn looy wax looy dox sa bopp amul looy dox moom nga koy doxal foo jëm moom nga fa jëmal yàlla yàlla guddal soo fan Mbàkke jërëjëf jërëjëf Mbàkke